ngi sant nag bu baax a baax a baax rek mboolem njabootu sëñ Tuubaa gi ñu ngi jël nu koy dugal ci seen loxo ñuy sant sëriñ Cheikh tey ñaan ci barkeb sëriñ Fallu mi nga xam ne moo fi dawaloon sa waajur wa loo fi bëgg a def rek yàlla na la ko yàlla defal ba nga def ko ñu ngi koy ñaan nag ci barkeb mag ñi nga xam ne ñoom lañ toog jataay bi ngeen jox ñu kaddu ngir ñoom ñoo ñaan ko ci seen barke niñ ko bëggee yàlla def ko noonu euh, sëriñ Cheikh nun de sant nañu wax dëgg yàlla ndax dëkk bii de sëriñ tubaa ko moom sëriñ tubaa fi nekkoon tam nag moo fi jóge dem liggéey liggéey bu rëy bi waaye ba mu fa jógee nag ba ba ñëw booba ak léegi kenn say saytuwu ko woon waaye sa waajur wa moo ko saytu ba tegu sa loxo kon nag noon ñi nga xam ne yàlla dafa dogal ci kappaaram la nu juddoo am na ci loo xam ne ñoo ko mën a wax waaye ku ko mën di wax ku ne daanaka leeru la man nag leer na ma moom ndax maa sa baay as gor la ab jullit la mbokkum ñëpp waaye dafa nangu woon jël lépp li sëñ Tuubaa gën a fonk mag ñi gën koo fonk muy ak taalib bi moom la jël def ko comme ni ko sëñ Gana Mérès Bassiré wax am na ci loo xam ne sax moom mi ñoom ñi ñu jur xamuñu ko waaye ñun ñi nga xam ne danoo am fa mu nu tegoon ngir sëñ Fallu noonu xamoon nañ fi tollu ci ci mag ñi yàlla na ko yàlla fay sëñ Cheikh nag des wax ci moom lu bari man wax ji ci moom rek la yam kilifaam Mouhamadou Moustapha Falilou ba ci Cheikh la Balla ji Baara mi fi jaar ak sëriñ Abo mi lenn lu mas a mooy dalaam sëñ Fallu amul kon nag nekk kenn menn mën a fi ne waaye ñëpp nag seen seen tànk tege na fii kon yëf yi yëfi sëñ Fallu te joxoon na sëñ Fallu léppam kon nag sëñ Cheikh jërëjëf la ma la waxoon daaw rek laa lay waxaat sa baay lañ fi nekkaloon nekk fi waaye nag ñaanal nit ki ne ko yàlla na nga mel ne sa baay noonu doon la ko ñaanal dañ la ñaanal yàlla na nga def lu sa baay loo nga def yàlla na nga def lu sa baay defutoon te def nga ko as gor nga ab jullit nga man nag lu tax du ma mat seere ci mooy damaa goneendoo ci yow léegi ma bàggee bari na waaye nag ñoo bokkoon gën kër nga doon sunu kilifa ndax fi ne sëñ Fallou ma jur lu tax ma kekk ko Cheikh Coro jur lu tax ma kekk ko li fi nekk kenn du ko mayee des koy jaay rek des koy jënd yow nag am na loo xam ne ni sa deret la ne man mi mu nekk sama deret kon mënoo maa yàqal dara mënoo maa yàqal dara waaye wax sax mbaax nag du yàq sama mbaax gi dara jërëjëf sëriñ bi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bu sëriñ Cheikh yëkkatee kàddu rek daanaka nun amatuñu fi kàddu ndax moom lañuy liggéeyal ndax baayam la ñuy liggéeyal waaye itam ku dajale mbooloo mu toll nii ak jëf ju am solo ji nga xam ne jëf nañ ko baag si fii faw nga jéem a wane ne am nga cant ak i ngërëm yoo leen amel loolu rek sëriñ bi moo waral kàddu yi waaye bi nga jëlee kàddu rek sunu kàddu yëpp dafa waroon a dugg ci sa biir kàddu jërëjëf Mbacke ñu di la sant te di la gërëm te di la sagoo te di la xamal ne ni sëñ Abo def rek doy na tegtal ba mu yebal ndaw ya def na leen dem leen ci sëñ Cheikh mi bu ngeen demee ngeen ànd dem ci sëriñ Cheikh waaye bu leen yebalutoon nit nag daañu xam ne kàddoom nga yor jëmoo nga yéex fekk nañu nitam nañuy xoolee suñu bo rek ak fañ ko tere foofa lañ lay xool kon jërëjëf Mbacke yal na yàlla sàmm la yal na yàlla guddal saw fan yal na yàlla mottali yéene ji nga xamante ne xam nañ ko ci sunu wayjur mu amoon ko ci yow yal na ko yàlla mottali. ci barke Cheikh Mamadou Fadilou gannaaw loolu ñu sant bokk yi bu baax a baax bis bii bi muy jub si demoon nañ Cheikh Mamadou Mountakha yëgal ko ko tàgg ko mu jox na ci ndigal ñuy fekk ñu di jiitu loolu bala ñuy def dara daañu dem ci sunu kilifa muy suñu abul barka ba mu joxe ci ndigal waxtu wu ne bu ñu demee la muy wax mooy na nga dem sëñ Mountakha te yëgal ko ko bañ demee itam mu yëgal ko ko moom itam mu rafetlu ko lool te jii mu yebal fi ak njabootam ci mboolem kuréel yi nga xamante ne mën naa ne sax mboolem jolof rek amee na nañu ak cant ak ngërëm ndax ku xool jamono ji ni mu demee nga xool mbooloo mi ak ni ñu ko wisee ak taxawaay bi nga xamante ne taxaw nañ ko ba bis bi lépp jag loolu ñu ngi leen ci sant leen gërëm te xam ne ñun dafa noo tiim rek waaye mboolem fukki kuréel ñaar fukki ñett yi nga xam ne ñoo ŋànk bis bi taxaw nañ taxawaay bu mat sëkk dajale seen i ñaq ak seen lépp ñëw seen taxawaay taxaw taxawaay bu mat sëkk yàlla na leen yàlla fay ci barkib Sëriñ Tuubaa ci loolu itam ñuy sant mbooloo mi nga xamante ne ñooy liggéey sëñ Fallou ci Ndakaaru ci alaaji Moodu Caan jiite ko man naa ne kon xam ngeen ne ñaar fukki at ak benn du benn bis te kero bañ ko tàmbalee ba nëgë ni ñoo ñooma ko ànd ci lépp nag ci taxawaay ci yitte yi ak lépp rek lépp luñ ci mas a def rek ànd nañ ko ñu ànd ñu rafet ñu ñëw teew si ci loolu itam ñu sant nag ma sant na sama rakkee bu baax a baax gërëm leen itam te di leen ñaanal yàlla nañ leen yàlla àggale ni mu yoon ñoom itam bi nga xamante ne jot nañ ndigal yi daal nañ sant seeni doom ñu taxaw taxawaay bu rafet sëkk waaye na ngeen xam ne sunu doom yi taxawaay buñ ci taxaw rek ci ndigalu seen way jur rek lañ ko taxawee mu tàmbalee ko ci sëñ Moodu mu sëñ Cheikh muy sëñ Cheikh Bousso mu sëñ Alaaji sëñ Moodu Xabbaan sëñ Mbàkke sëñ Fàllu sama moom ak Baye Cernu mi nga xam ne mooy seen baay am ak ñoom ci liggéey bi ak njaboot gi ci nekk ba ci sëñ Cheikh moom sëñ Sall kenn ku ne taxaw ci taxawaay bu rafet bi ñu jógee ñoom itam ñu dénk leen liggéey bi organisation bi lañ def mooy dañoo dellu ci seeni baay kenn ku ne ñu xamal la lañ ci bëgg kenn ku ne daal di yëkkati alalam def ca tàmbalee ko sëñ Cheikh Oumy tàmbalee ko ci seen bàyyi kenn ku ci nekk yëkkati aw ñaxam jox leen ne leen jéem leen fexe leen ngeen organiser ko kon gone luñ man rek na ngeen xam ne dara sëriñ bi ak seen bàyyi ndaw yi ñu leen sant leen gërëm tey lee ñaan yàlla yàlla nañ ko yàgg teewe ci at yu bare bare bari gannaaw loolu itam ñu sant Serigne Gana Messere cant koo xam ne am na fu mu tàmbale waaye amul fu mu yam ndax moom itam bi nga xamante ne wane jokkoon nañu moom daf ko rafetlu rek te fekk na ku yàgg am ci dëkk bi yéene la ak bëgg-bëgg ba tax na kon moom it ñu koy sant di ko gërëm ci loolu itam bi nga xamante ne def nañ plateau bi ci Ndakaaru si ma du Kara bi mu ko déggee dafa daal di yabal ndaw ci buntu rajo ba daal di xam le ne mbàkke bari googu yàgg naa ci am yéene lool waaye na ngeen xam ni fas naa ko yéene bokk ko ak yéen fas ni fas am am am ni yéene itam mooy daf ne woon bu dimanche dana yebal maam Thierno ak sëñ Gana Messere ñu ñëw fi lu war ci bis mu def ko yàlla dogal euh, mu waroon a ñëw Touba ci ndaje mi mu nga xamante ne moom lañ la war Touba bi joxe ndigal ne kenn ku ne mën koo def fa mu nekk loolu moo tax ñëwul ba bëccëgub tey rek amoon na dogu desiwaat sëñ Gana moo ko ne gannaaw xas nga sàkk ay ndaw ba noppi moo jurutu ngay ñëw kon mooy mi ñu sant ko gërëm ko mu yebal fi maam Thierno andi fi teraanga yu mat sëkk fas yéene bokk ak ñun bis bi fas fas yéene ànd ak ñun ba faaw ñu ji sant yàlla bu baax a baax baax nag di sant itam kilifa diine yi nga xam ne ñoo dëkk ci gox bi yëpp boo gisee itam yëgaluñu leen ko daf du teggin bu buñ bu ñu arrêté seen i gàmmu arrêté seen i yëpp duy teggin nga dem ci ñoom di leen wax bis te boo leen ko waxee duñ ci mën a ñàkk ñëw te dégg nga ko bi ñu ko déggee rek kenn ci nekk dog na ay yitteem ñëw ñenn ñuy téléphoné di ñaan jot seen i ñaan kon ñoom itam loolu rek moo ñu dem si ñoom njabootu Cheikh Mamadou Fallou gi itam li tax ah, aggu aggu agguñ ci moom nañ daan àggee ci ñoom lu du yem ci Cheikh Abdoul Baraka dañoo xam ne moom bu joxee ndigal ñoom ñëpp joxee nañ ndigal waaye ñoom ñëpp xam nañ seen yéene ci dëkk bi ak seen dëkk bii nag ñun ay taalibe Sëñ Fallu rek lañ sëñ Cheikh Thioro lu mu am rek da koy sante yàlla waaye mu sante ko Cheikh Mouhamadou Fadilou radiyallahu taala anhu ndax moom kat moo Mouhamadou Mourtada moo doon nampaleem bi mu tolloo ci juróomi at mu jëlee ko kër Cheikh Ibra Fall andi ko kër ama néewal kër nijaayam mu dem tuddi ko wàññi ko ñëw am man ñëwel di seet sëñ Mourtala fekk ko fa fekk mi nga ànd ak Alaaji Seexu mi turandoom moom mi di doomi ndeyam sëñ Fallu daal di koy laaj kuy sa baay mu ne ko sëñ Cheikh mu ne kuy sa yaay mu ne ko soxna Lalla Ndiaye mu ne Cheikh um kii de yéen a bokk ndey ca ngoon ba ñuy dem Cheikh Oumy di jooy na du ko fi bàyyi sëñ Fallu daal di euh, wax sëñ Mourtala ne ko moom de seex mi ma àndale day jooy rek ne du fi bàyyi doomi ndeyam ji sëñ Murtala ne ko waaw day sama nàmpaale rek moo taxoon mu indi ko fii waaye kon mu ngi ci say kon loolu moo andi seen sëñ Seex ci loxoy sëñ bi mu ñëwee itam sëñ Fallu jox ko sëñ Demba Kur ko sëñ mu jàng ko alxuraan mu jo yóbbu ko Gédé mu jàng fa la mu war a jàng ci xam-xam moom amee diir nag moom moo dogg ñëw ci sëriñ bi xamal ko ne ko man kat dafa am lu ma bëggoon mu ne ko lu mu doon mu ne ko damaa bëggoon a fëtti ko liggéeyal yàlla ci yow nee na sëñ Fallu ne ko ah, nga ko mën a mu ne ko boo ma dimbalee na mu ne ah, baax na na mu dem ba ca déwén sa ca bis ba ca waxtu woowee nee na sëñ Fallu waat ko mu ñëw naka mu ak sere mu ko da a mu ne ko waaw mu ne ko yow kat yaa ngi ci la nga waxoon daal ko ne gontal tey te fanaane ci daara ja keroog ba mu fanaane ci daara ja dafa dajale sëñ Fallu daa ñëw ci daara ja dajal leen ñëpp daa ne ab dongo gi seen biir kat waaye bis ni ki tey mooy seen jëwrin yéen ñëpp soxna men Fallu ca loola la takkeeg laxasaayam ñoo ko fekkee wax nañ ne juróom-ñaari at yi nga xamante ne laxasaay na ko sëriñ Fallu pakk teg bi woon ci ndiggam ak këll bi ak pakk teg bi mu nag ci boppam ak xandi gi mu doon rootee bu daa nelaw sax da koy nelawaale te mbàkke la daan yalwaani di dee sa allié di bay ñu wax ne bis bi nga xamante ne ci la sëñ Cheikh Oumy wàcc ab liggéey bis boobu la ko sëñ Fallu gërëm ñëw ca tool ba fekk na wax tàggeekul kenn Cheikh Oumy daal di ñëw ci tool ba daal di wax sëñ na ko demal wax Cheikh Coro mais ne ko gob boobu mu sànni bu mu si na mu ñëw wuy si ma mu ñëw mu ne ko yàlla gërëm na yoon bi gërëm sëñ Tuubaa gërëm na man mii maa ko seere daal ko xam ne seexu mi ko dafa nelaw sànq ci fajar waaye man rek maa ko waroon a doon ndax kenn ku jigéen la fi may naa la lépp kon sëñ Fallu euh, sëñ ku gëm sëñ Fallu ku ko bëgg la waaye sëñ doon na koo xamante ne ku taqoog moom ab diir dana def ci yow la mag ña taqoon ak sëñ Tuubaa defoon ci moom ñun sukkuwuñ ne la mag ña taxawoon ak sëñ Tuubaa la sëñ Tuubaa defoon ci ñoom sëñ Fallu defoon ko ci rakkam ji di taalibeem mu sëñ Cheikh Thioro ba tax mu fàttali ko dëkk kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp moo tax lépp lu ñu yëngu rek ci biir seen njaboot lañ koy teg dëkk bii nag boo xamante ne ku ne ne maam Thierno Ibrahima ak xalaat yi nga xam ne sëriñ bi am na ko maam day dëkk bu sëriñ Tuubaa mas sanc maam Thierno fa jiitu sancal ko ko sëñ Tuubaa day ñëw rek fekk ci néegi mu dugg loolu lañ ko ñëpp xam fu sëñ Tuubaa ma sanc dëkk ba daf ko daan bi tegtal sàngam demal bar sàngam maam Thierno jiitu fa defar kër ga defar yépp bu sëñ bi ñëwee day dugg ci kër ga rek ba ci Mbàkke Baari gi moom ci jiitu kon loolu doon loo xamante ne Cheikh Mamadou Fallou mi nga xamante ni itam mooy sunu yaakaar kenn ku ne yàgg naa dégg mu ne mag sëñ Moussa sama baax mag ju baax jëri bàyyi Thierno ñu jàngal bañ na ar mu yarnu ba ñu ner mu yeenu bañ na jar kon ñooñu itam xam ngeen kon maam Thierno am na lu def ci ñoom kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di balu ak ñëpp gone yi nag nii rek la bu seeni bàyyi di ànd ak noonu di liggéey ba wëlbatiku waat fa liggéey ba ci na ngeen góorgóor rek tam ñoom te nit kilifa seen bàyyi ñooy seen i sëriñ ñooy seen i seen lépp lépp lu ngeen def rek nañ ko diis ak ñoom leen lu ngeen ci am lenn lu leen ma xawe ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm waa Jolof gépp gépp nag kenn desul ñëpp seen taxawaay rafet na gis nañ ko bu baax a baax ñu ngi sant presse bi yëpp ñu kenn cant yi li ci war a lépp daal ñu ñu mënuñ koo jotal kon daal sëñ maam Thierno boo demee na nga ñu nuyoo sëriñ bi te xamal ko ne ko sa jataay bii xàmmee ko akub jataayam sant nañ ci gërëm nañ ci ñu ngi yàlla yal ko yàlla sàmm ci ko sëriñ Cheikh na yow dañu li nga wax ci noonu loolu rek la ñuy wax ci yow mujj ñu ci yow seere ndax suñu wajur danoo gisoon fu la tegoon teg fa njabootu sëñ Fallilou maa ngi fàttaliku bis bi nga xamante ne ci la Cheikh Mamadou Fallilou kenn ko ñaanal talaata ñu wax ci rajo jumaa ji ne sëñ sëñ Cheikh Thioro nee na képp ku yaakaaroon sëñ Fallu nekkoon ci daara ji nangu fekk këram bisu àllarba du ma ko fàttee keroog xottu barigo lañ ko taxaw mu daal di nuyoo ba noppi daal ah, mbir mi kat dafa am ko soppi ko ñi nga xam daal ne daal ne ñun nit a fi kii dafa xooloon sëñ Fallu ba mu doy ko mu jox ko boppam kii ay waajuram seetoom sëñ Fallu ba mu doy ko mu jëbbal ko ko kii ñëwoon fi ngir sëñ lu doon sëñ Touba mu ñëw fekk sëñ Touba ci keppaaru sëñ Fallou ma di leen xamal ne yéen ñett ñooñu nag kenn ku ci nekk dama lay ne bëgg xamal fay ab jataay ndaa ne koo xamante ne dañ la fi woon ngir sëñ Touba ngay ab doomi ab seer na nga xam ne bis ni katee sëñ Touba toxoon na fi sëñ Dogaar mooy sa kilifa nun ñii nga xam ne nag dañoo jaayante woon ak sëñ jox ko suñu bopp wala suñuy waju jébbaloon ko nun nañu xam ne sëñ Fallou jógu fi Cheikh Mouhamadou mooy suñu kilifa damaa bëgg ñun ñëpp ñu àndandoo ñu jaayante ñu dem jaayante ak moom jaayante googee nag moo fee dox ba bis na kër nga kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh allahuma salli ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa xayra xadimihi wa ummati wa salama taslim